yow li ma def dem noo ko ne lo ma foog xale ba tax mu wax li ma lay wax defoo ko nga dem def leneen ok baat du nga foog ne li ma la waxoon ko dama koy effacé effacé naa ko non non dindi wu ma ko de musuma ko dindi mu sama téléphone ma téye dama ko transféré sama bopp waaw kenn yow lan mooy sa problème lan nga bëgg yow da nga maa bëgg dugal si ay problème wala da bëgg yóbbu prison lan nga bëgg da nga may wax prison yaa fa bëgg a yóbbu sa bopp de man li ma la wax dafa leer nañ ñu ngi jox sama yaay nga may jox wax ji jeex waaw amatul benn benn loolu kese yomb na soo nga def ko mun jàll mënoo ko tamit prison mu lay xaar du wax naa la man mag laa du nekkatuma xale xool ay affaire prison ko def sa bopp man mag laa nekkatuma xale jox ma li may jox mu jeex wala xool ma créer le problème bu rëy yaay bëgg ñu problème ba ngi lay man xam naa li nga bëgg mais man di dafa def ba daf ma ndiru dil quoi loolu yow est-ce hmm? mel nekkatu sa téléphone yaay léegi day jël sa téléphone yaay di répondre message nu mu la man comprendre tuma comprendre ma rek même si que tamit bu de dafa am problème yow sa diggante yow sa yaay doon ngeen réglé ko seen problème mais man bu leen ma si dugal quoi franchement. yow xoolal bul bul dof dégg man est-ce que yow amatul benn jabar trois femmes nga am nii man ak sa jabar jooju noonu te keneen sax maa ngi di wax ak xaritam bi ñu war a war a jéngu ko lu ne <laughs> nag bala nga kaa def dara man ba pare day ñëw te nag yow xam na ni bu baax ak fi réew mi toll nii benn xale nekkatul xale bu ndaw fii ñëpp màgg ak internet bi nii waaye loo xam danga koy xam tamit dafa li ma wax. waaw lépp loo gis dañ koy waxtaanee donc yow yàlla doone xamante ni lu pare léegi nañ jël lépp ñu waxtaanee puisque yow xale nga te toll nga ci jamono boo xamante ni léegi internet. xale yi sa moroom yi dañ koy utiliser nice léegi dama lay proposé dina la benn iPhone 12 Pro Max bu bees tàkk comme ça léegi yow nga dem xool sa moroom ngeen ngeen mën a dund daal man yaa ma gën a xam. dama dama leen di ko xiif iPhone. xoolal soxla ma ay fan yooyu na li ma soxla mooy varaj varaj sa xiir bi soxla ñëwal nga dóor mu daanu gis nga nag bis boo ko defat fii ko di laa la may soo ko defat jàpp ne lépp la si jabar di yëg ma foog xale bu doon gis nga nag bis boo ma téewee ba ma jàppale nga géej xool sama yaay ñu def ni ma la wax de xam naa ne fi ñuy mujj mën a yow mooy que problème bi sa yaay moo ko quoi parce que échange bi laa mënatuma ko supporté yaa ngi may harcelé partout yaa ngi may harcelé fu nekk lu nekk yaa ma koy wax te ma du man ak yow man ak sa yaay la loolu il faut que nga def ko sa boobu li am sama diggante maa yow loolu erreur la woon rek mais ba mu jeexee la jeex mais ba mu bàyyi duma harcelé ma wax li naa ko wax sa yaay comme ça lépp leerin bonne fois pour tout man depuis démb ba léegi sax dégguma sa yaay xaw ma benn nouvelle am ñëwul def si sport ñëwul def si dara ndax damay xalaat ni que da ngeen ma complexe ñaar complexe daal la muy parce que ba tey dégguma ko fenn en tout cas daal bu muñ tey sama xel. bu yow looy wax ni li xam dara yow nga neex rek yow ba da nga foog damay fo. foo mu de gis nga leen laa ne wax fii ngoon soo ñëw sama gaale mag yow dina dina la yónnee lépp sa jabar ok lépp la yóbbu jox sa jabar tey sama gaale sama yaay nekk soo yóbboo nga ñëw fii léegi nag. ko yow nag boo xamul buur saara ñu ne la buur delloo xam fu ñu mujjee mën a yow mu lay boleki léegi léegi nii man ak yow duñu sax continuer parce que yow xool naa boo xam xale bu dëgër bopp nga léegi laa lay yow de bis boo dof dof loo bay jéem waxuma la nga bloqué de jéem maa bloqué ko defati yok kon yow sa prison dina leer léegi nii yow li nga joto a wax sama yaay yëpp mu ngi am ci kër mu ma garde ak li ma jot a man lépp comme yow soo bëggee dam jaabi ji damm sa gét kanam rek jéem maa bloqué walaayam nag te nag dans cinq minutes laa la may nga sama si kër gi léegi te sax soxlawaatuma benn message di ñëw wala léegi nii yow sa jëmm laa soxla ñëw fi léegi